sallim barke borom Touba ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di ci jiital njabootu sëñ tubaa gi fi nekk tàmbalee ko ci sëñ Fallou mi yàlla na ko sëñ borom yokk leeram ñu ngi koy jaar bu wér di ko jox cëram di ko wàccee ci wàccuwaayam di nuyu mbooleem kilifa diine boo xam ne mu ngi ci jataay bi di nuyu mbooleem kilifa aada bu fi nekk di ci jiital monsieur le ministre Mbaye Ndiaye. ak honorable député yi fi nekk ak autorité publique yi fi nekk ñu ngi leen di nuyu di leen remercier di nuyu mbooleem taalibe nag yi fi nekk euh, ñu rafetlu taxawaay bi yiñ fi taxaw tey ndax tey dañ fi taxaw ñetti taxawaay lañ fi taxaw ndax man maa ngi tudd Mawlud Diakhaté di adjoint Barthélémy Diaz ndakaaru mu denk ma culture bi ak tourisme bi euh, kon je suis adjoint au de la ville de Dakar Bart daf fi nekkul tey ndax mu ngi New York ci benn sommet moo tax teewu fi mais euh, metti lu na ko bi may ñëw yàpp na ma ne leen bu ma fi nekkoon man maa ngi ñëw teewel ko sam bopp moom yàlla gis na boole ñu que ne bokkuñu ak moom diine ji ñu bokk mais ñëpp gis nañu diine bi taxawaay bi mu am ci taxawaay ci lislaam kon monsieur le maire Barthélémy Dias je crois que euh, mu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp ñu fi nekk di leen remercier aussi ci cër bi ngeen ko jox taxaw fi taxawaayu Parcelles Assainies ndax maa ngi ànd ak Ndeye Sophie Camara muy première adjointe au maire mu ngi fii toog ci jigéen ñi ànd ak aussi euh, conseil municipal Cheikh Touré di conseiller du maire mu ngi fii aussi toog am na adjoint au maire aussi des parcelles yoo xam ne ñu ngi fii Boubacar Diouara mu ngi fii monsieur Taïb Ba mu ngi fii euh, mais représenté fi aussi commune de yoof Seydina naa Laye ñu ngi ko fii taxawal taxawaay bu rafet moom it nuyu ne leen ziyaar leen gërëm leen sant leen euh, bés bi nag di bés bu màgg di bés bu màgg ci lislaam di bés bu màgg ci rëkk bi ndax euh, bés bi lan lay symboliser ndax day symboliser julli julli di li nga xam ni moom la ñu gën a fonk ndax dañ ne mooy carte d'identité jullit euh, sëñ Touba mi nga xam ni suñ borom yàlla yaa rokki leeram euh, célébré na ko ndax sëñ bi boo xoolee événement yu mag yëpp yi nga xam ne ñu ngi koy célébrer sëñ bi julli la loolu day wane fa sëñ bi tuubaa tegoon julli julli dama ne. julli gi sëñ tubaa julli ci kaw géej gi ndax ñun dañ ko def miracle sëñ tubaa nee na loolu du miracle sëñ tubaa nee na ku bëgg a xam dayoom ku bëgg a xam ay miracle am dugal ci ay xasaayitam karaamati xattu yat yi sëñ tubaa nee na sama kiraama mooy sama bindu loxo sëñ tubaa nee na julli ci géej du kiraama ndax julli ci géej gi sëñ tubaa dafa amoon tolluwaay boo xam ne moo doxaloon mu julli ci géej gi ndax dafa nekk ci bato tubaab yi julli jot sëñ du faat waxtu te dina julli ci géej gi mais géej gi mbindeef la ni safara nekkee mbindeef ngelaw nekkee ko mbindeef noonu la géej gi nekkee mbindeef ndox noonu la nekkee mbindeef di layoo moo tax sëñ Tuubaa jëmm ji set na sell boo xam ni keroog suuf ndox mënu ko lekk ndax keroog suñu maam Ibrahima ba ko suñu du dugalee ci safara si safara si ba ko suñu borom joxee ndigal keroog safara si lorul suñu maam Ibrahima kon ndox mi keroog mënul war lor sëñ Tuubaa moo tax sëñ Tuubaa nee na loolu du miracle ndax julli géej googu doole defu ko xam defu ko ngëb ngëb nga moo koy def te siñ Tuubaa jokku waa ko yooyu yëpp boole na ko dajale ko kon ñu ngi ñaan suñu borom kàddu yi bañ a gudd nag xanaa naa ni war a intervenir bari nañu kàddu yi bañ a gudd suñu borom teewale ñu teewaat fii déwén kenn bañ ko manqué ñëpp ñëw fii ak seen sago ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen xamal ne Barthélémy Dias kontaan na ci seen taxawaay kontaan na ci seen bés te mu seen gannaaw lu ngeen soxla mu ngi leen di déglu te lu mu ci mënte na ko ci def kon ñu ngi di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf waaye nu bàyyi xel rekk ni li ñu tax a ñëw fii julli jii sëñ Tuubaa julli ngeen xam ni kon sëñ Tuubaa ku fonk julli la li wa teex sëñ Muntaxa yebal sëñ Fallu mii toog xam ngeen ni xam ngeen du neen kon mu war naa delloo xelam ci jataay yi mel nii ak ci jaamu yàlla ak julli waaye ñu ngi siyaale ministre d'État Mbaye Ndiaye tubarkal yow ci kuréel bi nga bokk waaye Abdou Karim Fofana ñëw na léegi il va représenter le gouvernement ndeysaan moom it dana wax ca kanam tuddi waaye